auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi bi ñu sant yàlla julli ci yonentam ba Seydina Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam fu mën a nekk ñëw lay jaar di la ñaanal jàmm gudd fan wér xéewal yaa defar àdduna ak àllaaxira rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam si faamu ñoo ngi leen siyaar baax dañoo ñëw ci altine ji tey nag fas yéene waxtaane yéen ci julli ci bi te muy lu yomb te bari njariñ lool ba tax na daal te bari nañu ko xamut te julli ci bi sallallahu wa sallam mooy lépp moom dong la jaam bi def di ko defal ak suñu borom tabaaraka wa taala leneen lu mu di def rek defandoo ko ak yàlla wala julli ci bi moom moom saa bu koy def rek mu koy defandoo ak suñu borom ndax yàlla moo moom ci boppam moo ne moom day julli ci ba ak malaakaam yi kon yéen nag jullit ñi dee leen jullit bi tey sëlmal jullit ci bi nag kenn mënut a ndax ay junni junni yonent yi wala nga ne wax ay million million yonent bi la ba tax na kon bari nay façon kenn mënta matal yépp waaye bi ci nag mooy sallallahu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 sa mbagg ak mbaggam yéenay taxalu dugg biir àjjana te sallallahu ala muhammadin def ci junni yomb na lool kon boo la neexee tamit nga def ci téeméer yaa xam lim boo ci man rek bu la neexee tamit nga def ci soixante-dix muy kun bu la neexee nga def ci loola soob rek ci salaatu wal sallallahu ala muhammadin moom nag moo ci gën a yomb te loo ci def rek bàkkaar du ko lekk julli jonante bi rek moom la bàkkaar du lekk leneen jaam geneen jaamu yàlla goo mën di def bàkkaar mën na ko lekk wala mu nga ñëw mooy ko yàlla mu yàqu waaye julli jonante ba loo ci def fa koy fekk bàkkaar du ko lekk dara du ko yàq waaye nag julli jonante bi tamit altine moom moo ci gën wala alxames bët sedd ajuma wala dimanche bët sedd altine guddi yooyu daal moo jëpp doole ndax yéen bi sallallahu mu tëdd ca xabroom ba am na malaaka bu fa nekk boo jullee ci moom ci juddu ñaari bis yooyu max muy guddik dimanche ba sel ne ak guddi alxames ajjuma muy alxames ci ngoon bër sedd ajjuma malaaka fa nekk boo xam da koy jox ne ko diw doomi diw ak diw moo julli ci yow lii am teel waaye bu dee guddi yooyu nag heure boo nee sallallahu ala muhammadin moo ko jotal boppam xàmmee la kon jullit yi yonent bi salaa lu am doole la te ku yonent bi xàmmee nga raw ku yonent bi xàmmee nga mucc ku yonent bi xàmmee nga defaru àdduna ak àlaxira boobu ci a ndaw bi ci toppaat mooy allahuma salli ala sayidina muhammadin allahuma salli ala sayidina muhammadin wasallama tasliman allahuma salli ala sayidina muhammadin wasallama am ñoo xam foofu lañ am ñoo xam dañu àgg ci wa sallama tasliman ja waaye boo ci def baax na bu la neexee nga def allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bu la neexee nga def allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman wa sallama tasliman ja nag moo gën a matale boobu tamit bu digg doomu la ci julli ci yonent bi salaahu salaam moom bu la neexee nga def ci cent onze téeméer ak fukk ak benn lim bu baax la bu la neexee nga def ci soixante-dix moom téeméer juróom-ñaar fukk muy kun lay tollool boo neexee boo ci mënee toog nga def ci junni sax ca la gën a nag daj dëpp gaa ngoog loo ci mën di def daal ci salaatu wala ni bu la neex nga def ci 92 92 mooy Mohamed moom it baax na lool kooku mën a saxal waaye lim yi ma wax nag lu ci waay saxal na ko fexe jël continuer ko ci kàttu suñu borom da gis njariñ la lu la jëriñ lool. am na nag ba ca gën a mag nag mooy salaatul fatiha mooy allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alacimi kooku ku ko saxal junni yoon bët bu set du wuti wutu fen dara salaatul fatiha nag lañ koy wax ku ko saxal junni bët bu set boo ko mënee du too wutu ci kenn dara boo ko jëloon nag nga def ko tey rek gisoo dara lañ lay wax nga demaat daal di bàyyi tur da nga koy liggéey saxal ko kon salaatul faatiha moo gën a ëpp ci salaatu ala nabi yi salaatul faatiha nag bu la neexee nga def ci junni boobu moom boo ko saxalee moom dutoo dara salaatul faatiha nag bu la neexee nga def ci téeméer boo xëyee taman ko bu la neexee nga def ci 92 muy Mohamed bu neexee nga def ci 111 bu la neexee nga def ci 70 muy kun ci salaatul faate loo ci def baax na lim yooyu ma wax yëpp waaye nag junni ba mooy daj dëpp ga kon li ñuy wax li fi nekk ci ci nga am mooy njëriñ yi nekk ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi kenn mënu koo wax te kenn mënu ko matale waaye nag daa ci may ay julli bii ku koy wax ñetti yoon saa boo xëyee ci kàttan suñu borom te day mel ni seen nga ci bàkkaar mooy allahuma salli ala badari tamam allahuma salli ala nuuri salaam allahuma salli ala miftaahi daari salaam allahuma salli ala safi jamin anam kii ku koy wax ñetti yoon saa boo xëy rek day effacé bàkkaar moom julli ko te julli gu yoon ci yonent bi la julli gu bu gàtt ma baamtuwaat ko allahuma salli ala badari tamam allahuma salli ala nuuri salaam allahuma salli ala miftaahi daari salaam allahuma salli ala safi jamin anam kooku julli la gu yéeme yéeme yéem ci yoon bi képp koo saxal ñetti fan ñetti yoon sax boo xëyee day effacer say bakkaar ci bu gaaw ku koy wax nañu koy saxal sax doo moom doo am bakkaar ba ca toppaat nag bii ku ko wax des na diggal juróom ñaar fukki malayka ñu koy ñu lay bindal ay tuyaaba di la faral ay ñaawteef walla ba bisi penc ba sax lay doon nag kii julli gu am doole mi ngi ñëw ku ko julli wax dees na ko des na digal juróom-ñaar fukki malaayika ñu lay bindal ay tuyaaba diirub junni at la bëgg wax kon julli ko am doole la ku ko wax dees na digal juróom-ñaar fukki malaayika ñu lay bindal ay tuyaaba diirub junniy at junni bis kon julli ko am doole julli gi nag mooy lii allahumma ya rabba sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin waati sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallama darajata rafiata wal wasilata fi jannati allahumma ya rabba sayidina muhammadin wa ali sayidina muhammadin ijzi sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallama ma huwa ahlahu loolu mooy julli gi julli gi di ko wax don ko benn yoon rek ci bis bi di leen digal juróom ñaar fukki malaayka ñu lay bindal ay tuyaaba diirib junniy bis julli gaa gi noonu nag allahuma ya rabba saydina muhammadin wa ali saydina muhammadin wa ala ali muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallama darajata rafiata wal fi jannati allahuma ya rabba saydina muhammadin wa ali saydina muhammadin ijji saydina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallama ma aluhu kon julli googu mu solo ma defaat mu ñëwaat ba tey julli gi ku ko julli ku ko julli saxal ko guddik ajjuma nag lañ koy def donte ko benn yoon la bu ñu lay dugal ci biir bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo kon julli gu am doole la ko saxal guddik ajjuma mooy alxames ci ngoon bët sedd ajjuma donte benn ko ko julli mu nangul boppam julli gaa gi ne auzu billahi mina seytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin nabil ummi habibil ali xadril asimil jaahi wa ala alihi wa sahbihi kii ku ko def guddi àjjuma gu nekk nga saxal ko bët sedd guddi waaye mooy alxames ci kon bët sedd àjjuma nga saxal ko booy dugg ci biir bàmmeel yonent bi moo leen nangal boppam mooy julli gaa ngoon nag auzu billaahi mina seytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiimi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin nabil ummi yi habibil ali xadril asimil jaahi wa ala alihi kon julli gaa nga mooy julli jonde bi nag day musal nit ci sawara julli jonde bi salaam nag day dolli nit ki leer ci àdduna julli jonde bi salaahu salaam nag day dolli nit ki wërsëg day ubbi nit dara gënu gaaw ci ubbi doomu aadama ci wàllu wërsëg kon julli jonante bi mooy lépp ku ko saxal foo jëm xam na jëm ko julli jonte bi ku koy def tamit nit ñi bu ñu la gisee dañ lay bëgg julli jonte bi ku ko sax koy def lu bari da nga am ak leer julli jonte bi sallallahu alayhi wasallam ku koy def da ngay saf nit ñi kon julli jonte bànkooka mooy la am solo kon ñoo ko leen ziar leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaa defar àdduna ak àllaaxira rawatina yi ñu amana ci Daaru Salaam si waaw wasalaamaaleykum wa rahmatulah